waaw asalaamaaleykum euh, mbokk yi maa ngi leen di nuyu yéen ku nekk ci turam ak santam man la seen frère patriote Amadou Ba donc maa ñëwoon rek euh, ci benn live bu ndaw euh, indi xëy na ay leeral ci communiqué wala mise au point bi nga xam ni docteur Alfousseyni Gaye mu nekk gynécologue ci dossier Adji Sarr bi génn sànq jox ko presse bi. mu nekk ay leeral yoo xam ni leeral yu ama am solo la te waxam je pense que li mu mës a waxagum yépp bii moo ci gën a leer bii moo ci gën a gën a leer te li tax mu am solo mooy moom mi nga xam ni moo njëkk a gis aju sa aji saar bi coow li amee nga xam ni gisu ko une semaine gisu ko fukki fan gisu ko ñaar fukki fan gisu ko ay weer bi mu amee matul ay waxtu ci la ko gis donc moom li muy bind kenn mënu koo weddi spécialiste la ci domaine am te li mu bind juge mënu ko dindi keneen mënu ko dindi dañoo yàgg wax ni dossier bi dafa vide ñi ñuy weddi di ñu weddi euh, mayuñu ki nga xam ni moom mooy ndayu mbili gi mu wax li mu bëggoon a wax yépp muy le docteur Alfousseyni Gaye ñu gis ni dossier Adji Sarr bi lu tax mu day waar mooy la ñu waxoon te procès bi wane ko mooy amuñu preuve amul benn vidéo boo xam ni ñu ngi ko doon xuuxale nit ñi di ko dig nit ñi naan bisu procès bi lépp dina génne boo xam ni am na donc nangu nañ ni vidéo amul audio amul li gën a doy waar nag mooy ñëpp ñi nga xam ni ñoom ñoo fekkee woon affaire ba muy ba jiñaate bi bi muy am ñu gënoon a jege mbir mi muy ki doon liggéey ak Adji Sarr borom këru Ndeye Khady Ndiaye mi nekkoon ci kër gi docteur gynécologue Alfousseyni Gaye mi ko gis ak capitaine Touré amu ci kenn kenn koo xam ni mën naa dëggal li tuuma yi mu teg ci kaw Ousmane Sonko amul donc mu nekk léegi nag ñu ne dañuy indi preuve scientifique parce que moom moo nekk ca kaw preuve boo xam ni docteur moo ko génne loolu moo nekk ci kaw lan la docteur Alfousseyni Gaye wax démb bi procès bi jàllee ñu gis média yu bëri yu ànd ak nguur gi commencé naan dafa gis man niw bi muy seet Adji man ñenn ñi sax bind ñi man niw bi mu gis ci euh, kanamu Adji Sarr boo ko nee na sax daf cee gis ay wallax ñaan ay spermatozoïde ñu bëgg a indi ay leeral yu am solo parce que tey dossier bi moom bu saran ko laayul woon tey moom dossier bi jeex na kenn mënatu cee indi benn benn benn tuuma nit mën nga ko teg ci dara amul juge amul magistrat amul procureur amul kenn koo xam ni sañati ngaa wax dara Ousmane Sonko ci dossier bi lan la ju lan la gynécologue bi wax tey nee man maa njëkk seet Adji avant muy déposer plainte ci le 2 février 2021 man ci laa ko gis ma def ay prélèvement jox ko ñu yóbbu ko ci laboratoire ñu xëyaat suba gendarmerie indiwaat ko ci man ma seetaat ko deuxième fois lépp xew ci vingt moins de vingt quatre heures avant événement yi mu wax ni dañ ko doon siif dañ ko doon sàkku ci ci loo xam ne du coobareel moom nee na man de bi ma seetee Adji Sarr li ma mën a wax mooy bi ma ko gisee ki ma waxoon ni déjà dañ ko violé ma ngay sonn dugg na fii gisuma ku ma niru ku feebar loolu la njëkk a wax nee na wax dëgg yàlla ki ma wan. mu yore téléphone am di ci fo niru ma koo xam ni kat dafa am lu ñuy wax ay traumatisme physique walla psychologique fekk ma ko muy jooy fekkuma ko mu jël loxoom dugal ko euh, boppam képp sangu ko ci fenn comme ñi ñu xam ñi nga xam ni dañ leen a violé wala nga gis ko mu dugg ci douche di sangu di sangu di sangu di sangu si yooyu yëpp fekk ma ko ci moom ki ma gis nit ku normal la di kaf di ree di fo te boobu nee na ñu ngi koy soog a soog a euh, violé ci ci li mu wax nee ma ko dugalee ci sama cabinet examiner ko maanaam ma seet ko bi ma gisee kanamam gisuma ci lésion vulvaire ñu ne ko loolu mooy lan mu ne képp koo xam ne dangaa séq ak góor muy sa cooba li sa coobare ak lu nekkul sa coobare lu mu ndaw ndaw ndaw war nañ cee fekk ay lésion loo xam ni ku ko xool ci gynécologue ci surtout ci si la ci saasi xaaruñu ba suba wala ginnaaw suba dañ ciy fekk loo xam ni dina mel ni dina la wan ni kii kat mu ngi soog a seq ak góor léegi wala bi mu seq ak góor yàggu nee na man gisuma ko kenn mënu maa forcé ma wax ni ndaw sii ma gis physiquement ci ni mu ñëwee ak ni mu comporté woo dañ dafa dañ ko violé mais man ki ma gis gisuma ci loo xam ne firnde la ni góor gi mu wax dafa seq ak ñoom seq na ak moom mais na man di gisuma ko man gynécologue bi tamaa ko njëkk a examiner nee na beneen bi gisuma benn yoon man ñu ci kanamu Adji man mi ne sequl ak góor Euh, ci man laa ci gisee man yu xanaa man bu yàgg nee na gisuma ci man yu nee na waxuma nag wallax jaam li ñuy wax spermatozoïde ci biir man yu kooku moom mënul nekk ndax bët bët mënul gis ci sperm ci spermatozoïde ci ndoxu góor ci man yu mënoo cee gis ay wallax jaam yi noonu loolu moom yàlla yàlla may ko nit may ko bët bët ko gis il faut ñu yóbbu ko ci laboratoire ñu xool ko ci ay microscope yu ndaw donc li mu wax tey lu am solo la nañ ko jàpp moom Adji Sarr bi mu njëkk séen mu yore téléphone am di ci fo ñu ne ko woon dañ koy violé menacé ko niruwul ku ñu menacé niruwul ku ñu violé benn ñaareel bi nee na moom dañ ko examiner tey loolu la bind loolu la bind parce que nee na médias yi ñu ngi yàq ay waxam ñu ngi koy wax loolu mu waxul nee na Adji Sarr bi ñu ko wax dañ ko doon violé menacé ko kay arme traumatisé ko nee na man ki ma gis niruwuma ku ñu violé benn constat beneen bi bi ma ubbee kanamam yër ko xool ko fekkuma ci lu niru ni kii kii kii dafa seq góor ci biir bi mu wax gis naa ni yàgg daa xam ne góor bu yàgg yàgg ndax ñàkk na ndaw bu yàgg waaye jamono ji mu ñëw mu tiim ko nga xam ne ay waxtu la après bi mu ne dañ ko violé kii moom sequ ak góor wax dëgg yàlla gisuma lu niru nga sequl ak góor moom nag seen xolatu nee na li ci topp man musumaa gis ci biiram lu ñuy wax man yu góor gisuma ko waaw gisuma ko ci sécrétion vaginale maanaam am na lu ma tibb ci moom ndax nit ki bu nee dafa violé dañ koo violé foog nga seet ndax amul risque infection sexuellement transmissible lu ñuy wax IST wala ay MST maladie sexuellement transmissible comme ay sida parce que nee na moom dañoo séq ak moom te sol ñu kàppoot donc foog nga joxe ko ñu analyser la pour mesure de protection nee na man de lii laa gis le deux ci guddi gi maanaam guddi gi aji saar ne dañ koo violé man maa ko xool man lii laa gis donc nuyu ma ku ñu violé fekkuma ci moom lu nuyu ni seq naa góor gisuma ci man yu góor gisuma ci wallax jaan yi nekk ci man yu nee na ma teg ci nii certificat euh, prélèvement yi ma def ci guddi googu man sama jëm bopp xam naa ni baaxul parce que man bi ma ko defee damaa jël sama benn agent rek jox ko defuma ko sous sele maanaam ni ñuy defee loo xam ni yoon da ko reconnaître maanaam yow man li nga li nga li nga jël ci moom parce que comme que man jàpp naa ni violé wu ñu ko jëluma benn mesure de protection dama ni nañ dem rek yóbbu ko laboratoire pour ñu seet ndax kii amul maladie sexuelle wala infection mais comme que man gisuma ci viol ah jëluma mesure de protection yi ñuy wax maanaam ñu def ko sous scellé euh, def ko ci euh, anam yoo xamante ni yoon da koy mën a jariñoo ndax nee na man li ma ko jox ñu yóbbu ko laboratoire lu ne mënoon nañ ko ci yokk te nee na gis nga même kanamu jigéen mën nga ci fekk sperme fekk sëy la góor bi ko juge bi laajee loolu nu mënee nekk nee na moom juge Alfousseyni Gaye moo ko wax de te loolu la bind nee na bu dee mën bu dee damaa fekk dañoo fekk sa kanam man niw li ko mën a indi ñaar bu dee da ngaa sëy mais nee na boo sëyul mën ngaa jëleel sa bopp man niw nga injecté ko yow nga dugalal ko sa bopp sa kanam nee na man niw même buñ ko fekkee ci biir c'est pas le résultat de sëy sëy boo xam ni dañ ko daf ko def léegi déedéet nee man yu bu dee yow te moom comme que bind nañu sëyu mooy man yu bu même buñ koy ci fekkee it moom moo ko dugalal boppam injection loolu la bind ci texte bi par relation sexuelle rapport sexuel wala par injection maanaam dañoo jël dara dugal ci man yu boo xam ni kenn xamul fu mu jóge nee na nag prélèvement yooyu mu def la deux yóbbu ko laboratoire dañu ñu ni ñoom gis nañ ci wallax jaan spermatozoïde ak ay wallax jaan yu dugg nee na moom waxu ko bind ko kooku laboratoire bi moo ko bind laboratoire bi la engage moom ay prélèvement la ko jox nee na moom gisul ni kii sëy na léegi nag la dugal ci kanamam ay spermatozoïde maanaam man yu góor nee na kooku moom mën naa jóge fu ne moo tax mu ne prélèvement yooyu baaxul bu ko bu ko kenn moom moom du ko garanti kenn engagé wu la preuve bi mu demee gendarmerie di porter ji plainte le 3 Adji Sarr bi mu xëyee suba dem dafa ni leen man de médecin bi ma seet dem ci guddi defal na ma prélèvement capitaine Touré du gendarmerie ñu ko non prélèvement yooyu baaxul ndax ñun xam ñu foo ko defee foo ko jëlee ku ko def li ñu mën a wax mooy dañ lay yóbbuwaat ci médecin bi bi yoon ñun ñooy jël prélèvement yi ñu def réquisition docteur bi joxo ko ko ni ko dañoo bëgg nga defal ñu prélèvement nga seetal ñu ndaw si defal